di leen wóor ne tafaay bamba dooma xam ne moo namp ci meenam ba fer ba matwaay ku koy weddi ne seet bis ba bamba wuy jéeb ñu toj kër ga ca njaareem ne dund day jéeb ni leen ndaama yu xooloom du yokku ay biir nanuy daw di koraamal roy dund roog biir jumaa ji dogan ak moom digal li naax saay saxaar ji dogan moom du ngeen ngi subraay jumaa ji dogonog moom digal li naax saxaar gi dogonog moom du ngeen gi subraay kërimum nu kërimin falaayu jaara mbokk yi sëriñ Abdul Karim nee ginnaaw bu mu leen nuyoo nee daa ñëw ci sunu bés bi nee loo gis nag day am ilimaan ñoom ñii ñoo tax ñu ñëw ci waaye bis bi nag noo ko bokk waa waaw sëriñ mag bi nag muy sëriñ Modou Moustapha lim magee wane na ko de sëriñ Modou Moustapha xamoon na ne bu fi sëriñ bi jógee yoon wi dafa am nu mu war di doxe doxin woowi nag sëriñ Modou Moustapha da koo wone ba nun ñëpp ci yoon woowi la ñuy dox yoonu murit sëriñ Abdul Karim nee na ci noo nii lay doxe te loolu lépp pas-pasam akuk njàmbaram moo ko may sëriñ Modou Moustapha moo tax fun tollu sëñ bi ñu ngi koy sant bu baax a baax a baax a baax ndax ku ne xam na ni melow yoon wi melaw yoon wi moo nu ko xalal bañ xam fi nuy teg suñ tànk te yoon wi ci boppamit it fépp fi mbooloo nekk ka leen jiite sëriñ Touba moo ko fa tegal boppam sëñ bii nag am na ci njabootam ku ma seet woon ma ne ko nanga góor góorgóorlu de ndax sa waajur dey ak kaweem ak ak yëkkatikoom loolu fés na sëriñ Mbàkke Soxna Lo ku ko nekkal ginnaawam loolu kooku loolu xam nga ne rëy na ba kooku xam nga ne rëy na ba noppi waaye ma ne ko yow day sa waajur nag ni ko nit ñi soppee kaar kaar ak niñ ko nawee loolu nag aw meloom la loolu nag sëñ mu sefaa saw melo la sëñ bi nee xanaa muy ñaan mu yàgg loolu bu baax moom dey yoon wi ñëpp a ngi lay bëggee ci say melo ak say taxawaay jërëjëf Mbacke waaw xanaa bég loolu rek ci seen toogaay bii ndax yéen ñaar da ngeen di dundante bu ngeen giseek bu ngeen gisewul te ñu am luñ ci xam ñu xam ko ci moom mii xam ko ci yow mii ndax man mii saa yow ma gisee li nga may njëkk a wax ana sëñ bi ma ne la ma nga fa nga ne ma mi ngi baax rek wax nga ma ko ay yoon te loolu lu ñu war a leeral la moom itam ku ko nuyu te bokk ci yow. lu jotaay bi xat-xat dina yëkkati ay kàddu jëme ko ci yow ndax melokaan wii nga mel dafa bokk ci melokaan yi ko neex lool ndax boo tegee fii nga tege mel nii nga mel yoon wi kenn du la xool ba am lenn lu muy xewet lu may di la ñaanal nga yàgg fi te wér kuy nit ku ne dina la bëggee te sëriñ bi nag loolu da ko ràññee bu baax a baax a baax a baax seen toogaay bii nag danoo fàttali rek noonee ñaar ñooñee meloon muy sëriñ Modou Moustapha ak sëriñ Fallou sa waajur nag muy sëriñ Mbacke soxnaloo di ku naqaree xam kawam wane wut li ci biir li ci biir gën a foor fuuf li ci kaw ca melokaan wa ca wàcc àdduna mu rot te te te gis doo njort loolu te fekk àdduna la wàcc mu rot ba mu jeex takk moo moo taxit mas naa ne ko irxal ila taifa mansili ahmadina ramsil bariyati indal mayri wa diini daan la yow mi nga xam ne yaa bëgg ku la jox dara ak nga boo demee fekk fa diina ju mat sëkk laxasal dem taayif sëriñ bii nag teew gi mu teew ci yow li ko waral bari na wax na ko mbir moom bokk la waaye am na am na imaam anta minal aimma waaye la waaye mën a wax cofeel dëgg dëgg dëgg dëgg bokk na ci li ko ba mu wax ba mu ñëw fii ku la sopp la te it nag ñaareel ba lim la junj ci sa njaboot gi léeg-léeg ñëw seet si ko ngir am guñ am cofeel ak xam guñ xam sa diggante moom waaye lu gàtt gàtt dana leen wax na leen yéen dana ngeen xam ni ngeen di téye seen bopp ndax seen waajur day mel na ko de te ñoom it nag bu ñu ñëwee ku leen gis dana xam ne am nañ tàmbali. te sëñ baa ngi lay ñaanal ngir mu àggal ak jàmm sëñ bi teew na fi ngir siyaar si la ngir ngir feddali kóllëreem sa diggante ak moom ci bis bi di nuyu nag sa mbooleem rakk yi nga àndal ak kilifa yi nga xam ñoo nekk Daaru Xudoos yëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. borom kun téléphone Moustapha ca ñaafeen mu ñëw yóbbu ko Touba ci kun fa yekkoon tubaab yaa tere teng yaa ci siixi mu waar leen te defal leen ba ñëpp farlu keroog daama ko fal xutb muy xalifaam mu jiital ko ci baatin mu donnu lislaam wal waarisu àqan abu taaja huwal xawsu xada lil muridi aja wal waarisu àqan abu taaja huwal xawsu xada lil muridi aja fajal aajo yi aajo yaa lamboo te fóotal nu ma faasit ya xol ya lamboo leen wóor ne tafaay bamba dooma xam ne moo namp ci meenam ba fer ba matwaay ku koy weddi ne seet bis ba bamba wuy jéeb ñu toj kër ga ca njaareem ne dund day jéeb